jërë ngeen jëf mbokki safoo 28 pro ñu ngi leen di nuyu di ñëwaat ak ci li gën a fës ci xibaar yi di xew-xew bu doy waar amee fële ci Touba xale bu jigéen di ab élève la ñu fekk mu ñàkk bakkanam gannaaw ba nga xam ne ay mbokkam ñoo ngi koy wër dimanche ba léegi ba mu leen tàggoo ne dafay dem école tey jii ci mardi bi lañ ko fekk mu faatu ci anam bu doy waar dimanche dafa tàggoo seen waa kër yi ne day dem jëli euh, bulletin fële ci école bi muy jàng ci Daaru Xudoos euh, yaayam bàyyi ko jox ko 5000 ne ko léegi nga jaarale sama téyër bi mu jox la yëre yi bu mu demee nag ba ngoon yaayam defe na mi ngi ci tëyër bi tëyër bee parewul ba guddi ñoom seen waa kër yi def nañ lu ne mais mu mujjuñ ko jot parce que xale bi portable am euh, dafa yàqu woon yóbbuwul portable léegi nag euh, bu ñu demee ba ca lënd ga nag ay booru midi ñoom ñu ngi ma woon mënuñu ma woon ci ay woo ma jot ma mën leen dem leen commissariat bu midi ma woo liet naa euh, la si leen fa yabale ñu dem def fa seen déclaration si lañ ma woowee fekk tasaare woon na photo bi ku ñu wax euh, chef Goudia bi nekk Janagul di élément BER mu woo ne ma effectivement photo bi nga xam ne moom nga yónni woon moom mooy Ndeye Diop moom moo faatu léegi mooy aussi si tii daal di taw fii xool euh, ñu xam ne lii ñuy wax lu am la mu nekk nag aussi lu métti quoi loo xam ne ñëpp la perte koo xam ne dëkk ci dëkk bi rek wala fu mu mën a dëkk rek rawatina quartier Soba leer naa bu ñu yéegee fii sax euh, guy mi ni njóogu yaramam dafa daw maanaam nekkatu fi parce que nit nit dong nga ba mu mu mën a doon parce que li dafa métti boo xam ne amagoo sa 18 ans yi ma euh, doon jàng sa directeur am sax bañ ne ko dafa déplacé wu démb ñëw ne moom lii xale bi gannaaw ba ñu dellusee ci li ko faat moom xale bu jigéen boobu di benn xaritam bu góor bu mu bokkaloon école la seet si woon ci dimanche jooju ci la ko xale bu góor boobu jam paaka ci ay wax yu doxoon seen diggante waaye yemul ci jëf ju ñaaw jooju daf ko jël dugal ko ci benn bërigo ndox ci biir kër gi ngir làq ko ba kenn du xam ne rey na nit muy jëf ju ñaaw joo xam ne mi ngi ko jëfoon dimanche passé waaye tey jii ci mardi bi la dem jébbal boppam police moom xale bu góor boobu ginnaaw bi nga xamante si nii mënul muñ jëf ju ñaaw jooju jamono ji ñuy wax mi ngi ci loxoy police askan wi ju ñaaw ak di sàkku kaaraange ci dëkk bi. Euh, sécurité yaa koy njëkk wutal sa bopp. parce que ku la nekkaa ñu daje fii bañal wala nga am ak règlement de compte ku mu mën a doon demal nga ci police nga dem déclaré ko moo gën a wóoru ndax euh, gaar bu mag bu yàggul am na kuñ fa rey benn ndaw mm-hmm. pa bi ñu agressé nag lii foog dëkk bi lëkkaloo bokk ndey bokk bàyyi lu ñu gis ñu teel koo dénoncé parce que bëri na ci xale jigéen ñu naan dañoo réer seen i yi ñuy gën àndal ñoom ñoo def leen lii li la tey ku ci doom ji génn foog nga jël say a a

nee eh, dafa ñëwoon di jëli résultat euh, comment dirais-je résultat examen entrée en sixième wax dëgg mosuma xamal noonu sax entrée en sixième génn na moom moom ma ko xamal sax nee moom la doon jël si ñu laajte ñu ne dafa de ci condition yu njëkk yi wax dëgg yàlla en tant que yaay métti ah, ma lool nag. Hmm. métti ma lool wax dëgg yàlla. Hmm. métti na lool wax dëgg yàlla Touba moom wax dëgg dara lu ñaawul fi am. waaw métti na lool kuy jabar ku ne na ci yow. lan ngay sàkku ci yu mel nii mu bañ a amati. ah xanaa rek jël ci ay matukaay rek nag jël ci ay matukaay rek nag wax dëgg yàlla Touba moom dara lu bon waru fi am dara lu ñaawul fi am wax